Mariam Thiam maa ngi félicité comité scientifique Benno Bokk Yaakaar en l'occurrence Racine bi nga xamante ne moo piloté forum bii ñuy def tey pour que ut ñu mën a ut outiller suñu ay jeunes pour ñu mën a xam suñu programme lan la wax ñu mën a wàcc ci population yi wax ko ci yar ak ci teggin jotaay bi nag boo ko xoolee c'est majoritairement constitué de jeunes day wane rek l'espoir bi nga xamante ne madame le ministre Zahra Iyane Thiam mi ngi koy suscité biir Sicap Liberté et espoir boobu li tax mooy yaram tegginam dalam et ses compétences également parce que nag c'est bien beau de vouloir diriger la destinée d'une commune mais dafay fekk nga mate ko ndax lu waay di wuyoo da koo war a juróom te madame le ministre mate na ko moom jeex tàkk jeunesse su Benno Bokk Yaakaar jeunesse su Zahra Iyane dañu leen di ñaaxaat rek di leen ñaax donc li fi xew léegi rek dafa am lu muy firndeel ndax kii ñu àndal di liggéey nitu jàmm bi mu doon bi mu gisee ful bi dafa demandé à ce que nañu dem indi leader boobu mu ñëw taxaw fii waxtaan donc moom rafetlu bu baax taxawaayu jàmm bi mu nekkee ci biir commune bi lii na nekk exemple pour ñun ñii ñëpp ànd ak moom ñun ndaw ñi nañu gëm ne commune bi ñun ñoo bokk lépp tey violence ku ko fi indi rek ci sa dëkkandoo nga koy def te ëllëg ak si boo jàkkaarloo ñoom yaay ruus kon nañu def campagne si jàmm campagne bu dal campagne ci ay idée parce que nag ku ne defe naa boo jógee di laajte da war a am programme boo war a mën a décliner si sa à travers sa programme boobu la nit ñi di mën a jàngatee ba xam kii war nañ ko dénk war ñu ko dénk te ñun ki ñu am programme am kuñ ko toogal ba waxtaanal nga nañu gongo kon nañu jël suñu programme boobu dugg ci kër yi le plus important mooy convaincre les populations mais noo di def di verser wu à la violence. di wax ne nag pareeguma ndax suñu jotaay bi depuis quatre heures la waroon commencer waaye. mu am lu ma tënk ci liggéey ma dellu ca barab ba pour def ko ndax bu leen fàtte ne jëwrin laa dëgg la dama ne ci campagne électorale mais bu liggéey bi soxlaa damay bàyyi lépp dem ca liggéey ba moo tax ngeen yéex ma gis kon waa Liberté 5 na ngeen xam ne dinaa ñëwaat su dee suba dinaa ñëwaat dugg ci kër yi bu dee gannaaw suba dina dinaa ñëwaat ndax Liberté kenn la ci ñun ci biir commune Sicap Liberté 5 fii bu ñu fi amee 100 pour cent bett ndax waxuma la population yi mais kilifa yi magu jàkk yi ñépp bi ñuy door dañu ñëw ba fii dix-huit imam yi nekk ci commune Sicap Liberté yëpp daje fii ci jumaa ji ñaanal ñu ñu door a départ kon Liberté 5 buñ fiy ñëw dañu koy jox dayo ak gëdd bu mat sëkk kon maa ngi rasure population yi na ngeen xam ne pare gu ma ak maa ngi ñëw waaye tey ñaari mbir yu am solo daf fi am bi ci njëkk mooy suñu candidat bii door a ñëw sànq ñëw na fi ne dafa ànd ak mbooloowam waaye bi nit bi mu déggee ne ñi ngi fi mu ne day ñëw nuyu suñu jàpp naa ne da doon wut si plateau pour buzz rek ndax bi ñu commencé campagne bi ba léegi ñun gisuñu ko waaye li mu def rafet na parce que jàpp naa ne ñun ñëpp ñu xamee ne ñoo bokk commune bi kenn ku nekk nangul sa moroom la muy def kon duñu sonn te loolu la population yi di xaar si ñun gis nga élection ñaar ba ñetti taxawaay moo koy def taxawaay bi ci njëkk mooy la nga jëflanteeg sa askan te du li nga jëflanteeg ñoom bi élection bi tàmbalee ba nga soxla leen mais li nga jëflanteeg ñoom saa soo leen yeewoo taxawaay boobu dafay am solo dafay am parti dafay am lu muy indi ci élection beneen taxawaay bi mooy sa programme gannaaw ba ngay nekk ci askan wi di dang-dangeet moom askan bi war naa mën a xool ndax la nga leen jagleel la nga leen bëggal ak la nga leen nammal méngoo na ak ñoom seeni soxla loolu lañuy wax programme mu nekk beneen pàcc bu am solo ci li nga xam ne ñiy tànn dañ koy xool waaye beneen pàcc bi nga xam ne dafa am solo lool ci ku bëgg jiite rawatina gox-goxaat mooy comportement nan nga mel ndax nekk nga nit koo xam ne mën nañ la wóol ndax nekk nga koo xam ne am nga respect ci population yi am nga respect ci sa bopp jox nga nit ñi maqa euh, dayoo jox wegg nga leen ndax wegg nga nit ñi ñett yooyu fu mu daje. jàpp naa ne kuy wut waroo tiit waroo jaaxle te nag may wooñ askan wi bu baax ci ñetti màndarga yooyu ñu wax ñu xool ko ci candidat yi jàpp naa ne buñ koy natt rek am na ñoo xam ne waxuma sax dalal xelu nit ñi mais ña ñu dëkkal seen bopp duñu dalal seen xel ndax tey réew mi dafa toll foo xam ne non seulement dañu war a xam ne ñun ñëpp doomu gox bi la ñoo ko bokk mais surtout dañu war a xool defi yi ñu suñu kanam xool défi sécuritaire yi xool defi économique yi xool defi sanitaire yi moo tax li ñu dajale fii te muy nekk ñaareelu tomb bi gënati am solo premier tomb bi nee naa mooy comportement bi ñun ñi nga xam ne ñooy wut war a am mais ñaareelu tomb bi mooy ndax li ngay jagle nit ñi dëppoo na ak li ñu soxla moo tax forum des jeunes bii am solo ndax tey programme bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté daf ko fas yéene def bés buñ ko wóoloo ba jox ko lengey fii ci commune Sicap Liberté jeunesse bi daf ci am pàcc bu am sol kon bu jeune yi jëlee seen initiative ne dañuy organiser forum pour que candidat bi mën a faram-fàcce programme bi faram-fàcce li nga xam ne moom la jagle jeunesse yi je dis bravo à la jeunesse ndax léegi les paradigmes de développement changent waaye aspiration population yi ci seen bopp dafa change te bu fekkee ne acteur politiques yi rendre ñu compte xamuñu gisuñu ne la jeunesse a besoin d'autre chose kon ñi ngi juum te la jeunesse les acteurs politiques war nañ xam ne dañ leen war a déglu sa doom da nga koy déglu xale da koy déglu ndax xam nañu li ñu bëgg xam nañ nuñ ciy jotee te xam nañ fan lañu ñu war a jëm te xam nañu it ku leen dimbale taxaw ci seeni soxla moo tax ba forum bi forum bu am solo la mu permettre ñu wax li ñu namal jeunesse bi ci éducation ndax éducation du tàmbalee ca ba nga amee 16 ans mbaa 17 ans mbaa 18 ans éducation mi ngi tàmbale ca ba nga doonee tout tànk gannaaw bi waajur yi defee ci xale yi la ñuy def ci ñoom ci kër yi ba pare ñu dugal la préscolaire mbaa ñu dugal la daara nga dem école primaire moo tax établissement scolaire yooyu jàpp nañ ne mairie bi dina leen gën a encadrer accompagner pour xool l'environnement des établissements scolaires pour xool la qualité des enseignements à travers la mise à disposition de tous les outils yoo xam ne dina permettre xale yi am égalité de chance maanaam nga am wayjur bu la mën a fayal ak nga am nga ñàkk ku la mën a fayal faw mairie bi seet lu muy taxawee ci accompagner tout tànk yi ci dëgëral base bi nga xam ne mooy dem ba yegg ci études supérieures bu fekkee ne yeggoo étude supérieure tamit ñu xool ci wàllu formation professionnelle naka la ñuy mën a taxawalee xale yi ba kenn ku ne am métier ndax jàng du ci tubaab rek jàng mën na la permettre nga am base mais lii base dëgg li yor doomu aadama dëgg mooy am métier kon dinañ wut ay centre d'incubation ay centre de métier yoo xam ne dina accompagner ne ndaw yi nga xam ne dinañu mën a également jël ressources humaines expertise yi nekk ci biir localité bi ñu mettre ko à leur disposition xëyu ndaw yi aussi daf ñu yitteel te question yi jeunes yi proposé yi jeunes yi posé ci forum bi war na ne xëyu ndaw yi lu leen yitteel la moo tax ci fànn boobu aussi jàpp nañ ne au delà de l' accompagnement il faut ñu am modèle boo xam ne dina mën a absorber toute la demande de la jeunesse yi nekk ci biir quartier yi ndax li ëpp ci ñi dëkk ci suñu quartier yi ay jeunes lañ naka lañ leen di joxe opportunité pour mën leen absorber loolu nee nañ dinañ ko jaarale ci modèle économie sociale et solidaire bi nga xam ne expérimenté nañ ko à l'échelle nationale au niveau des acteurs plutôt femmes mu joxe des résultats probants dinañu xool nu ñuy jëlee modèle boobu adapté ko par la mise en place de coopératives pour que jeunes yi également mën a ci loolu am employabilité boo xam ne dina nekk un début pour l'activité professionnel loolu aussi dinañ ko boole ak ay ligne de garantie ligne financement yoo xam ne dina mën a ak accompagner l'entrepreneuriat kon forum bi dama jàpp ne lu ñu war a dupliquer la lu ñu war a def ci quartier yëpp la moo tax décider nañ bés bu ñu nekkee maire pour bañ a kase contact bi am ndax gouverner ak nekk maire du dara lu dul nekk en contact avec sa population xam lan la ñu soxla xam lan moo xew ci quartier fii biir Liberté 5 buñ fi ñëwee dañ naan le premier problème c'est l'assainissement ndax boucher du fi jóg beneen problème bi ñu ne la sécurité beneen problème bi ñu ne l'éclairage tey fii ñu taxaw mën nañu wax quelles sont les catégories socio-professionnelles de Liberté 5 parce que toog nañu waxtaan nañu moom ñoom population yi wax nañu kon pour bañ contact boobu kase dinañu def chaque semestre des rencontres avec les communautés pour suivre ensemble bu ñu ginnaaw bu ñu bokkandoor élaborer le budget municipal bokkandoor définir les priorités chaque semestre dinañ def des rencontres avec les communautés pour ensemble faire la mise en œuvre Mais on ira plus loin, on ira plus loin, car chaque mois, un quartier sera visité pour que ñu xool dans le cadre de l'exécution municipale quelles sont les actions à mener. Et c'est ça le plus important du wàññi ay nit li ëpp solo mooy nit ñi mën a xam ñan la ñuy tànn ak ñi leen bëgg a jël ngay ci seeni loxo bu ñu li ko jëlee fan la ñuy teeroog ñoom xam nga ne. liste boo xam ne ku mel ni Chérif ay dara wóolu na ko liste boo xam ne ku mel ni doyen Adi Wade wóolu na ko liste boo xam ne ku mel ni ku mel ni ku mel ni wóolu na ko liste boo xam ne société civile lañ ci biir association yi nga xam ne dañu nekk des associations spécifiques ñi ngi ci biir c'est une liste citoyenne c'est une liste de la commune te c'est une liste boo xam ne ñi ci ne caaxaan taxu leen jóg foo taxu leen jóg liberté rek la am seeni kër fii la ñu ne fii la ñuy yeewoo seeni wayjur fii lañ leen denc seeni njaboot fii la ñu ne kon li ñu am yëpp fii lañ ko am kon gox bi faw ñu taxawal bëgg ko taxawal moo tax ñu ne dañuy doon candidat kon maa ngi lancé encore appel population yi nañu def le bon choix te le bon choix kenn mënu ko tàqale ak les opportunités yi nga xam ne communes yi dañ koy xaar les opportunités c'est d'abord l'exécutif local mais c'est ensuite l'exécutif de la ville ndax la ville de Dakar bi nga xam ne chaque année mu am quasiment 60 milliards de budget ça fait plus de 12 ans ñu yore ko 60 milliards de budget boo ko defee par 12 c'est un minimum de 600 milliards ñu population yi wax 600 milliards ci ban commune lañ fa def infrastructure boo xam ne méngoo na ak li askan bi bëgg amul. ça veut dire que bu ñu jëlee capital def ko capital boo xam ne liñ ciy sàkku mooy xeex ak état centrale rek ñun population yi ñooy pâtir kon il est temps de faire les bons choix il est de faire le choix utile il est temps de faire le choix judicieux mais surtout surtout. Il est temps de faire confiance à cette jeunesse vaillante kii se bat chaque jour pour tekki kon maa ngi sant waa Liberté 5 sant responsable yi fi ne yëpp sant press bi te di wax ne le travaay continue ñu ngi ñëw wàcc ci terrain bi gën a wax ak population yi gën a jaay suñu programme parce que nous estimons que c'est le meilleur programme maa ngi